ngi en direct déglu. waaw ah, maa ngi lay ziar baax a baax a baax a baax. ñëpp la quoi dama bëgg Sénégalais yëpp déglu ma. Mhm. allo. waaw ñëpp a ngi déglu mon frère. waaw te ñun ñu ci terrain bi fii nekk ci dëkk bi ah. am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy gis mënuñu ko wax maa ngi lay woo sax waaye man damay ragal sax. amul problème sécuriser naa sama appareil yëpp. très bien. Ah. li ma bëgg ñu xam ko moom mooy maanaam koo xamante ne nii pare pour bàyyi réew mi. Mhm. tout sauf Sonko fépp la malam Macky Sall actuellement ma am sax dañ ko dañ ko renforcer sécurité moom ci boppam Sénégalais yaa ngi muy déglu nga xam ne li muy wax sécurité am dañ ko renforcer moom pour nga seen otom sax problème la fi doon am ñaar fi doon am ñaar léegi ñett la fi doon am ñett fi am fi doon am ñeent mu ngi am juróom tout tous les plans renforcés ci du ma ko mën a expliquer am na ñoo am na loo xamante su ma ko waxee sax mënul tiital Sénégalais yéen Sénégalais yi waaye jarul ñu si si àgg. jaru ko jaru ko. Mhm. waaye waaye voilà très bien waaye li ma bëgg ñu xam dafa am li nga xam te ne moom moom moo ko. billahi wallahi tallahi laa de mhm. kaay mhm. maa la ko borom billahi wallahi tallahi laa de Sonko taxul ñuy actuellement nii. xeex changement lañ bëgg ci suñu changement lañ bëgg suñu réew soppeeku lañ bëgg ci suñu réew Ousmane Sonko ñëw teg loolu ñu ci loolu gëm loolu comme loolu boo ko bëggee loolu boo ko bëggee bañ da ngay ay Sénégal yu bare bare bare bare bare bare te bëri na ci ñoo xam te suñu kilifa diine yi ñu si bëri ñoo xam ni ni nañ ma jégal man dama leen xaw a condamné ci benn côté parce que dafa am ñi nga xam fii bu ñu ko doon gis ñoom ñu teg seen bët même bu ñu ko même bu a taxaw wax wax ak mm. Macky mi ni ko yoree parce que affaire Adji Sarr bii nii billahi Sénégal partout dans le monde Sénégal partout dans ay fenn ay tapale la ay fenn. te nag daa daa leen dee benn mbir. waaw. moo leen du benn mbir Maham Diallo ana Maham Diallo. Maham Diallo mu ngi fii de. repéré nañ ko ci village am. léegi nekku fii. non Maham Diallo Maham Diallo yaa kidnappé. Maham dañ ko kidnappé. ah. Maham Diallo dañ ko kidnappé. Maham Diallo leer naa li wax nii ma xam jàllo yaa kidnappé dañ ko kidnappé parce que ma xam jàllo xëccoo naa moom ci ay kàddu yoo xamante ne nii affaire yi ko bëgg a si loolu mu bañ ko mu lànk dama bëgg déglu baale ma am na loo xam te ne duñ ci xuus waaye man man damay laajte rek man anam ma xam jàllo nañ wax ma xam jàllo fa la ne espèce experts yi ak euh, journalistes yi ak ñi nga xam te ne ay dañoo xarañ ci euh, ay ñoom Babacar Kébé Lo ñoom Pam Ndiaye ñooñu lañ ma wax fan la ma xam jàll ne ma xam jàll ne nañ ko loqati bu dee dëkk ba la nekk ak fu mu mën nekk nañ ko loqati génne ko bu dee mën nañ ko ma xam jàll kenn ko gis du jamono bi du jamono bii lay bu dee ko gis waaye du jamono bii parce que am na ñuy def yoo xamante ni ah, nit ku ànd conscience ànd yàlla ragal yàlla xam yi fi ci dëkk bi am na loo xam doo ko nangu léegi nag actuellement nii xeex bi dafa doon loo xam te ni actuellement nii Macky Sall ak ak Ousmane Sonko nekkul loo ñaar kese la ma xam ne Macky Sall dafa am ñu ko wër ci ginnaaw ñëpp ñu ko ñoo xam te ne nii tey jii ñoom ñoo ko xamal ne ko carrément mbir mi nii am tolootuñu fu ñu réglé waaye am war a sam ka kaaru parce que lépp ay tappale yëpp ay tappale la ba ci juge Samba Sall yooyu yëpp affaire yi ci nekk wallaay la nga sim la kaay foog buñ ko buñ ko toogee di ko wax fii fii ba suba du jeex waaye Sénégalais yow gaaw fàtte rek allo mhm. allo ma xam ñu ne mu ngi Dakar yow gaaw fàtte rek kon ñëw na Dakar gaa ne kon ci Dakar lañ ko kidnappé Dakar moom moom moo rey Samba Sall waaw Samba Sall Sénégalais ñoo gaaw fàtte rek Samba Sall Maham Diallo dafa dëgër bopp rek Maham Diallo waxoon nañ ko ko encouragé bi yëpp waxoon nañ ko ko bu laaj dossier bi moom xam na li ci nekk actuellement nii. tey jii bu ñu demee bay euh, yóbbu Ousmane Sonko procès di ko a ci a ay email nii ni ma lay wax nii ba ba tiim ba ni ma wax ak yow nii nii nii nii nii nii nii ci xam gis kii kenn mënu laa wax fii nekk wala fee nek man man damay laajte rek man ana moom lañ ma wax fu mu nekk. bu dee a ak fa mu nekk bu dee ah, am nañu ko gis village nañ dugg ci internet bi wala ñu wala ñu posté ko seen Facebook ñu ñu xam ne moom Ciss Makham Diallo ah diw gis nga wala mu ngi fële. allo. ñëpp a ngi comme dafa am ñi nga xam te ni xam nañ ko dañ koy dégg suñu tànk maanaam am na loo xam te ne wax lu wax dafa jot bu wax jotee dañ ko wax. d'accord waaye actuellement nii réew mi bañ bañ nangu xeex day am. da nga am de ñoom ñu ngi préparé am force lay am day am ñoom ñu ngi préparé yaay wala tan lay xex day am ñoom ñu ngi préparé wu Macky Sall mom réew mi mom Macky Sall mom Sénégal Macky Sall dañu abal Maham Maham Diallo nenañu nenañu domom yaangi jang école flamboyant près de Samu nenañu gaay nenañu am na école flamboyant fu mu nekk gars yi nee nañ seen école flamboyant nee nañ ñu wetu SAMU bi SAMU bi fan la nekk. hôpital SAMU waaw hôpital SAMU mu ngi nekkee booru foire ba. voilà yaa ngi jàngee ñu ne ah, boo jógee hôpital sax bi wala nga jógee rond point six. waaw. boo jógee rond point six droite da lay féete boo jógee ba rek boo ñëwee ba ci bi. Mhm. da ngay jàdd mhm. si jumaa ji ñoom jumaa ji hôpital beeg jumaa la nekk loolu la. Sika Foire ak Uno Sika Foire ak Uno ak Sami yëpp ñoo taxaloo benn benn alignement la. waaw ñu ne gars yi nee nañu nañ ko fu muy jëli doomam. ah bon. waaw de sama sama gars yi nekk fii nii ci commentaire yi nee nañ ñaa doomam yaa ngi jàngee ci école boobu. Ah, baax na en tout cas moom li ma la mën a waxee

nit mënu ko. am na loo xam ne as ko ko def. d' accord andi na tous les plans yoo xam te ni tey jii ne moom moo jugé nee nee nañu nee nañu nee nañu moom moo jugé nit dof dégg naa moom moo jugé nit dof moom ko kii mandat de dépôt. déedéet non bu ma ko woon jugé bu ma ko woon jugé bu ma ko woon ko mandat de dépôt waaye ba léegi euh, nit dof gisu ko. nit dof gisu ah? am na loo biir Maagam Diallo gisuñu nit dof nit dof gisu ko dégg nga ma de. wala wala wala avocat am ngeen laaj ko. d'accord ba xam nit dof gis na Maagam Diallo. d'accord d'accord. wala avocat am ma gis Maagam Diallo gisu ko ba léegi gisu kenn gisu su moromam. d'accord. gis Maagam kenn xamul fu mu ne kenn xamul